bismillahi irrahmaani irrahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxna wa asbaxal mulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inaa nasaluka xayra ma fi hada al yowma xayr ma baad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 jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si li mu nekkoon ci jotaay bi ñaanal ko tawfiix suutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallaahu dañu am tomb dab dabaatal tomb dab dabaatal mooy journée internationale bu xew te fekk nu jàpp walla fekk mu xew te fekk nu enregistré léeg-léeg ñu tudde ko te mu dab dabaatal dab dabaatal mooy romb na nu wax ca jël wax ji yóbbu ko ca journée ba mu am ñaari journée yu fi jaar yoo xam ne bi buddul international it di national benn bi mi ngi jëm ci handicapé yi benn baa ngi jëm ci maladie mentaux yi bu fekkee nu lañ koy waxee ñu njëkke benn bi nga xam ne moo jëm ci handicapé yi at mu jot dañ leen defal benn bés bés boo xam ne dañ naan ñoom ñoo ko moom bés boobu léeg-léeg mu romb am ci ñoom yu ko yëgut walla am ci ñoom ñoo xam ne gisuñ ci seen bopp wala am ñoom ñoo xam ne gisuñu jeexantal bi bis bi def ci ñoom àdduna léeg-léeg bu ñu ne journée nàngam dañuy jàngat nàngam joojee buñ ko jàngatee ba noppi la ca nekk ci manqué manqué kero lay bu deñu cent pour cent yi dañ soixante dix jëm kaw pour cent bu fekkee ne bis bi day jot nag ñu wutal leen ay yére yu niroo toggal leenu añ tudde bis bi bis bi su boobaa bis bi bu dee seenu bisit gisuñ ci seen bopp dafa am benn groupe bu tudd social wala mbooloo wala lu ñu demee social mooy ku mën a bokk ak say bokk li nga am su bis bi ñëwee dana war na seet ñi ñuy tuddee ay handicapé ñaata lañ ci réew mi loolu lay war a njëkk a seet ñaata lañ ci réew mi bu fekkee am nañu ministère buy toppatoo loolu bu ñu xamee ñaata lañ ci réew mi ñu door a xam kenn ku ci nekk handicap bala dal wan xeet la bu ñu xamee wan xeetu feebar moo la dal su boobaa ñu mën a ñu mën a xayma ndax kii li ko dal dox na digganteem ak liggéey walla doxu ko su doxul digganteem ak liggéey lun ko mën a liggéeyloo te loolu muy liggéey dellu ci moom dellu ci njabootam dellu ci réew mi bés boobu war nañ ci fekk statistique yi won yooyu ba pare mooy handicap yi ci Sénégal ñaata lañ Sénégal gépp nag ñaata lañu bu nu xamee ñaata lañu ñu xam ña ca silmaxa ñaata lañu waaw ña ca ña ca manqué ab loxo ña ca manqué ab tànk ña ca manqué ñaari tànk yooyu yépp ñu xam leen yooyu yépp ñu xam leen buñ leen xaymaa xam leen danañu xam ñaata ñoo ci mën a liggéey ak lan lañ mën a liggéey ñaata ñoo ci munta liggéey ak ñu leen di e, taxawoo loolu jar naa xayma bu fekkee xayma bi amagut bu fekkee am na mënees na ca sukkandiku suqali leen waaw lu am solo la sallallahu alayhi sallam xam naa pénc mi danañ ci di référé wu pour am fitu def liñ bëgg a def wala référé ci pour am fitu bàyyi luñ bëgg a bàyyi waaye référé ci ne lii mu jàngale nan ko dox léeg-léeg du demee noonu waaye moom alayhi salaatu wasalaam li àddunay def tem jiitu leen ci dafa bari te lam ca defoon xewee gutte du xewi bi mu ñëwee ilal madina radiyallahu taala at mu jot daf daan def recensement at mu jot da koy def dana ko def pour xam ñaata bébé la lislaam am ren waaw bébé yooyu bébé ya weesu woon ñaataa ci fer ñaata ci toll ci dal jàng waaw jigéen ñi fi toll ci néegi sëy ñaata lañu ñaata ñaata sëy yu bees moo ci am ren waaw malade yi fi yi ñu fi yëgoon ñaata lañu ña ca wàññeeku ñaata lañu ci lañuy xam kon mbooloo mi ñaata fi des ndax yokk na yokkuwut waaye ci biir loolu nag ci la daan xamee masaakiin yeeg foqaraa yi borom bi jàppale pénc ma ci indi leen listu bu asaka ñëwatee na dem ci ñii ma ne kon loolu nga xam ne lu rafet la politik bu jaar ci yoon la alayhi salaatu salaam rëddoon na ko xam handicapé yi ñaata lañu yan xeet lañu ba ba bu ngeen seetloo tànnoon na ci seen biir ñam xam ne mën nañoo taxawi ay yëf musant leen ko ku mel ni Abdullahi ibnu Ummi Maktum mu xam ne mën naa nodd mu boole ko ca noddukat ya Abdullahi ibnu Ummi Maktum te silmaxa la woon waaw mu boole ko ca noddukat ya waaw ku mel ni Abdullahi ibnu Mas'ud mu boole ko ca jàngalekat ya ndax ab jàngalekat la woon te ku déggoon alxuraan la dégg ngeen la ci alayhi salaatu wasalaam wax ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir ñooñu doy na ci misaal mooy bi mu gisee ni ñii am na luñ man daf leen koo defloo sunu ci ñi ci nekk di ay handicapé am na lu ñu man am na luñu ñu man waaye bu ñu ko gàllee ci aada dañuy defe ni képp ku handicapé taxawal ci mbedd ma yalwaan yi waaw te te ñi jàpp ne handicapé wuñu am na ci ñooñ ña am na ñooñ am nañu ay handicap yu ne ci ñoom te ñoom ñu raw leen waaw barki démb ci jataay yi euh, sëriñ Mbàkke Sylla mi ngi ci dalal góor gu gu am solo waaw Baye Modou Jaxate euh, yitte jëm def ba mokkal alxuraan njàccaarañ ci dëkk bi àggul suurtu àggul suurtu tabat ya daa walla suurtu lahab waaw te am na keneen ku jiitu woon Baye du Jaxate ñooñu mën nañoo jàngale alxuraan waaw samp sax daara kon aada moonu bëgg a gëmloo ne ab handicapé daa war a dem yi te réew mi neexoon naa yalwaane waaye léegi neexatut yalwaane réew mi neexoon naa yalwaane neexoon na cib sëriñ léegi nag réew mi yooyu ngi soppeeku neexute yalwaane ndax ab sëriñ kuy yal kuy yalwaanub sëriñ doo ko sarax waaw kuy ñaanub sëriñ doo ko àddiyaal danaa koy faral wax ci jataay waaw jigéen li feeg yaa ngi koy ñee doo ko dimbale ab sëriñ li feeg yaa ngi koy ñee doo ko jàppale penc mi nag noonu la mel neexoon naa yàlla waaye fi ne melatul na meloon waaw na meloon euh, doon naa def benn proposition boo xam ne bii sunu mbokk mëla ca Italie Malick Sall bu Thiamène waaw benn proposition boo xam ne bi ci nuy jëfandikoo ci picc mi rek lay doon nu yokk ca dara ma wax ne bu nu yokkoon juróomi dërëm ci gasoil beek super maanaam carburant bi ñu yokk ci juróomi dërëm nga xam ne képp ku jënd litre gasoil jox nga keesu handicapé yi juróomi dërëm képp ku jënd litre super jox nga handicapé yi juróomi dërëm waaw nu yokk ci facture ndox mi ñaari dërëm yokk ci faktiiru courant bi ñaari dërëm boole leen mu ñeenti dërëm juróomi dërëm yee walla fukki dërëm yee ak yokk bii di ñeenti dërëm loolu bu nu ko boolee c'est des millions wala sax dana matub milliard bu recensement bi amee dana mën a dellu ci handicapé yooyu nga xam ne mënuñoo liggéey mënuñoo liggéey ñu teg ko ci seen loxo te bañ koo politiser teg ko ci loxo yoo xam ne bu tegee seen loxo kooka du ca domp ndax sunu réew mi neexute yóbbante joxal ma diw yóbbante bi ci réew mi amoon na solo lool waaye léegi euh, doy na waar able leble yóbbante nga xam ne ñu ngi ko tënk aliyu aliyu waaw able leble yóbbante aliyu aliyu dafa dafa faatu <laughs> yàlla na ko yàlla yërëm able faatu na leble faatu na yóbbante faatu na boo ko boole muy aliyu su boobaa yóbbante yooyu di jëm ci handicapé yi donte penc mi neexute yóbbante ndax yóbbante mu àgg ca nanga ko bëggee léeg-léeg du bari lool moo tax jigéen joo joxub yóbbante bu ko joxee jox la numéro téléphone ko ak góor a jigéen ñi waaw tey su nit ne woon joxal ma Oustaz Alioune Mbaye cinquante mille man dama ko jox rek ne cel waaye bu ko joxoon bu ko joxoon xadi euh, seen bu joxee Oustaz Alioune Mbaye cinquante mille yi da koy jox numéro téléphone daado mi ko ko jox lu mu ci bëgg mooy na daado woo na na na Oustaz Alioune Mbaye woo daado ne ko xadi seen jox na ma euh, cinquante mille yi jigéen ñoom noonu lañuy def bu dee ci góor ñi nag dañ naan cell moo tax léeg-léeg foofu di gën di manqué doonte jigéen ñi am na ci nag ñoo xam ne boo leen yóbbante ñu domp ko ku mel ni nogay waaye daal dama bëgg wax ne yooyu buñ ko yokkoon ci carburant bi yokk ko ci ndox mi facture yi yokk ko ci courant bi ba mën a am fee juróomi dërëm mën a am fii fukki dërëm buñ ko boole mu fukki dërëm juróom dama ne loolu ku ko dajale mën naa yor ñu baree baree bari mën naa jàppale ñu baree bare bari ci wàllu handicapé yi ña ci mënta déplacé wu ñu jëndal leen ci ay waruwaay waaw ña ci amul dépense ñu dompal leen ci gis nga social googu moo waral euh, subhanahu wa taala azaka social googu moo tax mu wàcc azaka def ko juróom-ñetti nit ñoo xam ne euh, penc mi xam ne ne juróom-ñett ñooñu soxla nañu ko leen jàppale tàmbale ci innama sadaqatu lil fuqara ba ca wa fi ak ibnu sabil mbokk yi bis boobu di journée internationale pour handicapés yi bis la boo xam ne bu ñëwee ñoom ñépp war nañ cee mën a gis seen bopp malheureusement discours yi léeg-léeg mu neex lool discours yi léeg-léeg mu neex lool dige yi léeg-léeg mu neex lool waaye discours yeeg dige yi daa war a doon loo xam ne lu palpable lay doon làmbu daj xool gis waaw làmb daj xool gis waaw loolu am sol loola tabaarakallaahu ñoom boo jàngee suratul mauna suratul mauna duutoo dëkk ku handicapé di ko seetaan déedéet góor gi Alioune Fall ku jàng suratul mauna araayta dootul dëkk ku handicapé di ko seetaan waaw maa la ko wax de waaw ñoom góor gi eh, bàyyi yaat ma loo bàyyi mu du jaxate waaw sekk ku lim jum ku jàng suratul mauna ak Ibrahima jàll mii ci xaar yàlla ku jàng suratul mauna dootoo dëkk ku handicapé mukk di ko seetaan ndax sunu borom def ne dama leen di laaj ndax bëgg ngeen a xam ku gëmul alaxira hmm? waaw mu leen di laaj ndax bëgg ku gëmul alaxira nu mel question bu ndax bëgg ngeen a xam ku gëmul alaxira nu muy waaw mooy ad diin bés boo xam ne dafa tudd diin diin eh, malik yawmi diin jàng nañ ko ad diin mbokk la ci ad daynu bii firi bor mbokk la ci ad daynu fiir firi bor almaliku dayaan daa bokk ci dàkkental wala turi sunu borom yi ad dayyaan allasi yu kasi bu bi diin la sunu borom wax bu ngeen ko bëggee xam déglu leen ma ma wax leen ko bu ngeen bëggee xam nit koo xam ne gëmul diin gëmul bés penc ndax bés ci day bés boo xam ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara ca bis ba wa man yaamal mithqaala daratin charran yara ca bis ba xayran ak charran rek a fa nekk nag ci bis ba laa thalitha lahuma amul ñetteel xayran yara charran yara waaw mooy ku fa liggéey lu jar juróomi téeméer boo ñëwee yara waaw ku fa sàggan càggante gu jar juróomi yar bu fa ñëwee yara léegi nag sunu borom ne ki gëmul bis penc mu ngeen ko bëggee xam fa dalika alladi yadul yatim li ngeen di njëkk a xam ci ay jikkoom mooy digganteem ak jirim yi waaw bu ngeen bëggee xam ko ku gëmul bis penc da ngeen di xool digganteem ak jirim yi ñu ñàkk bàyyi te mataguñ góor walla ñu di jigéen te mataguñ jigéen ñu tudd al yatim taxawaayu penc mi ci alyatim muy jirim la sunu borom wax ne ci ngeen di natte ndax kii gëm na yàlla ak gëmu ko gëm na bis penc bokk ak gëmu ko yadul yatim waaw <laughs> moo tax ku dëkk ku jirim rek war nga xam sa bopp ku dëkk ku yorub jirim it war ngaa xam ki yor jirim bi ah waaw negg-neggal yar-yar bu rafet yor fayal jàng xottil yére boo gisee ku koy def cib jirim neel kii gëm na bés pénc boo gisee koo xam ne kii ma ngay pes ma ngi koy yuuxu waaw su yaay nangam surtout bu dee ca tànt yaag ñoom seen yooyu yëgal ne kii gëmul bés pénc suñ borom moo ko joxoñ kon jirim ab seetu la boo xam ne nit ñi mën nañ cee seetu gis ci sunu bopp nun ñëpp ndax gëm nañ bis penc wala gëmunu ko benn seetu bu tudd jirim ci la ñuy xool yëf yooyu yadul yatim waaye mu teg te wala yaxudu ala taami al miskin wala yaxudu ala taami al miskin mooy ñamu ñamu ñamu miskin ñamu miskin miskin mooy ku amut te rusuta yalwaan waaye ñi muy yalwaan nañ xam ne miskin moom tam ci ci seetu yi nit di seete boppam ndax gëm na bis pencam déet ci la bokk nit ñu taxawoo miskin kon joxoñ boobu alxuraan joxoñ jëme ko ci miskin yi jëme ko ci handicapé yi ah ab soñña la ab fenêtre la ab seetu la waaw ab soñña la ab fenêtre la ab seetu la nit ki gëm bés penc ni muy jëflanteeg yatiim nit ki gëm bés penc ni muy jëfandikoo miskin hmm? loolu la sunu borom wax ne ci ngeen di natte ndax kii gëm na yawmu diin walla gëmu ko araayta allazi yukazibu bi yawmi diin araayta allazi yukazibu bi diin waaw ah, fa dalika allazi yad'u al yatim mu nga kon bis boobu nattukaay la ci ñépp ni ñu taxawoo jirim waaw te loolu état war na ko man lool réew yee ñuy dem de léeg-léeg boo fa demee da leen di ñee waaw ba demee ci barab yuy marché yu mag yi dañ fay def fii handicapé yi di gaari seen oto nga yëg ci ne am nañu parking bu ñu moom nga yëg ci ne kon kay ñoom am nañu oto kon kay ñoom am nañ oto ndax tubaab baa ngi defar oto yoo xam ne ñàkki tànk du tee nga mën koo dawal hmm? waaw waaw tubaab baa ngi defar oto yoo xam ne ñàkki tànk du tee nga mën koo dawal waaw waaye dafa mel ni bëreegul ci sunu réew yi waaw ñoom seen oto yi tax nga xam ne ay bus la dakaar dem dikk yeeg yu ne demee ñoom ca foofa bu bu handicapé di yéeg am na nu muy def ba mu mën a yéeg sunu point yi ñu doon def ci penc mi am na ci point yoo xam ne noonu lañ ko liggéeye woon ba handicapé yi mën cee yéeg waaw hôpital boo demee ca réew yooya dañoo am spécial seeni docteur yoo xam ne ak seeni barab bi taxawukaay ak ñoom seen yooyu ak ñàkk ak ñàkk dëgg tike ñu bere leen ayif yoo xam ne ñoom daañ yëg seen bopp ci pénc bi waaye ñun suñu aada moo gàllankoor yu bari bu takk jabar jotee boo ca nobee sa yaay na la du ci dal buñ la nobee yaay na la ci dal kenn mësu koo gis kenn mësu koo gis waaw sa yaay na la du ci dal say bokk na la du ci dal walla soo ko takkee tey boo ñëwee ñu ñu ñu ñu ber ko di ko sànni ay baat ak i traat yoo xam ne kenn mësu koo gis waaw xam naa loolu bu ñu demee yomal xam ba teg sunu téere du ko layoo waaw du ko layoo président bay layoo lool dana sonn waaw xaw ma nag Senghor lay doon xaw ma ab Abdoulaye Wade lay doon xaw ma ab Abdou Diouf xaw ma président Macky waaw xaw ma ko ci layoo ci yooyu wa tara kulla ummatin jaathiya kullu ummatin tuddaa ila kitaabiha mbokk yi loolu tem temu dab dabaatal la woon bu jëmoon ci euh, journée internationale bu ñu defaloon handicapé yi euh, tabaarakallahu fekk nu nekkoon ci tomb bu tudd euh, éducation ndax école moo doon dooru ubbi waaw te wax naa ne nag loo ne bu subaa laa ci wax tey lay xewi <laughs> jërë ngeen jëf ak seen i fa rekk te jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ni taxaw yor seen i këyit bëgg la na firiñ fàncal xibaar yi toi firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo yii C3S mii nga xam ne tabaarakallahu diir bu yàgg a ngi ni mu ànd ak nun yàlla na gën a yàgg la ci bitim réew yàlla na ñëw li ci biir réew mi yàlla na jar ak suñu gan gii di eh, café gi te café teranga waaw <laughs> café teranga xam naa sunu gaa yi fi nekkoon ñi ngi ñëw dañuy wutiwaat doole rek yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu